bismillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ñëwaat ak yéen ci suñ jataayu tafsirul quraanil karim bi ñuy ànd ak yéen ci biir koor gi tey ñu war a tafsir saaru yàlla tudde al balad ñi ab dëkk suratul balad aw saar la woo xam ne yàlla da ko tàmbalee giñ waxoon nañ ci jataay bi weesu ci suratul fajri ne yàlla da koo tàmbalee giñ ngir eh, ñu bàyyi xel li muy wax ak ngir rëyal li muy wax saar wi itam yàlla da koo tàmbalee ci ngiñ mu tàmbalee ko ci laa laa boobu day gën a màggal li muy wax day gën a màggal li muy giñ da ko gën a rëyal da ko gën a rëyal arab yi dañoo baaxoo woon di waxe noonu bu ñuy giñ léeg lekk jiital ak laa goo xam ne ngir gën a firndeel li ñuy wax gën koo réyal loolu lañ ci jublu maanaam ngir feddali xabaar bi mu ne laa uqsimu bi haadal baladi maa ngi giñ ci dëkk bii ñu nekk maa ngi giñ ci dëkk bii nga nekk yow yonente bi sallallahu alayhi wa muy màkk bi haadal balad maa ngi giñ ci màkkatal mukaram wa anta xellun bi hada balad bi mu giñee ba noppi nag laata muy wax li muy giñ mu am lu mu fi doxale ci diggante bi na ko te dëkk bi nga nekk de yow yaa ngi fi nekk euh, dagan ñëpp sab der ñëpp ñëpp di la lor ñëpp di la tooñ ñu di la bund di la xeex waaye day wa anta xellun bi haadal balad di nga dema dem ba jàkku say noon ñaar yëpp mën na koo tekki wa anta xellun bi haadal balad mën a tekki dangaa nekk ci dëkk bi daggan ñëpp ñu lay lor di la tooñ di la bunn xataa di la fitnaal te ñu mbuuñ ko ci keneen mën naa tekki itam wa anta xellun bi xasal balad mooy di nga dema dem ba jekku say noon ba am doole ju mag a mag te loolu am na yonent bi salaa sallam bi mu demee madina ba ñëwaat màkka ma yomu fatax màkkata ànd ak eh, ay junni junni saxaaba yéefar yépp dañoo tiit ba am ñu raw di làqu ci ak di ko sarxu ak di ko jéggulu kon ñaar yépp mën na koo tekki wa waalidin wa maa walad maa ngi giñ ci suñu seen maam aadama muy seen wayjur aw wayjur foofu waalit yàlla da koo def euh, muy nakira ngir màggal ko maanaam bàyyi la ngir màggal ko ak ko kon maa ngi giñ ci dëkk bii nga nekk di giñ tam ci aadama mi nga xam ne moom mooy wayjuru ñëpp wa maa walad ak mboolem doomam yu baax yépp maa ngi giñ ci ñoom am na it ñu wax ne wa waalidin mooy bépp bàyyi rek wa walla de ak jëpp doom jëpp doom jum jur maa ngi giñ ci ñoom euh, danañ seetlu ne foofu dafa jëfandikoo maa mawsuul te jëfandikoowut man te xam ngeen ne ci araab booy wax lu amut xel ngay jëfandikoo maa waaye bu dee lu am xel la man ngay jëfandikoo ñu ne nag yàlla li tax mu jëfandikoo fii maa moo ngir gën a taral li muy nëbb li muy wax da koo bëgg a nëbbu nëbb googu mu jublu ci màggal ko ak réyal ko loolu moo tax ngir nëbb ko jëfandikoo man bi nga xam ne pour ko am xel la waaye mu jëfandikoo maa pour lu amul xel loolu euh, xeetu waxin la wax ne wu araab yi xam la te ñëw na ci alxuraan ci beneen béréb sax fa muy waxe naan fa lamma wadaat qaalat rabbi inni wadaatuha untha wallahu alam bi ma wadaat bi maa wadaat foofu maa mawsul li xayril aaqil lañ jëfandikoo kon mu ne maa ngi giñ ci aadama wala bépp woy jur wayjur walla walada ak lam lam am ci doom wala doom yu baax yam jur <clears throat> mu doo ko ñëw nag ci li muy giñ lu mu li muy xabaar ba tax muy giñ lan la li muy giñ mooy laqad na al insaana fi kabad man yàlla bind naa dama bind doomu aadama ci coono bind doomu aadama ci coono doomu aadama ci coono la ko yàlla bind fam la tàmbalee fa muy juddoo ba fi muy faatoo lépp ab coono la juddu ko ak faatu ko sax ab coono la ndax buy juddu yàlla di nas ci moom ak ruu ak ba demee ba e, war a juddu noonu mu sonal yaayam ak noonu ko yàlla tourné ci biiru yaayam nga xam ne bopp bi la yàlla tourné mu féete si ci bunt bi tànkee féetewaat ca biir loolu lépp ab coono la boo xam ne ngir laytaayal ne kii na la judd daal ci coono la judd te ci lay faatu bu juddoo itam ci coono lay dëkk du tàqale kook moom ba keroog muy faatu te coono boobu ñi am ak ñi ñàkk ak ñi jiiteeg ñañu jiiteeg euh, ku baax ak ku bon ñépp a ko yëg nit koo gis ak ku mën a doon mi ngi am ay yitte mi ngi am ay bëgg-bëgg mbaa mu am ay njaqare mbaa mu am ay aajo yoo xam ne ci lay dox di ci wax ngir loolu saafaraw loolu lépp di ay coono yoo xam ne yàlla da cay bind doomu aadama moo tax du taqale ko moom ba euh, keroog muy faat laqad xalaqna al insaana fi kabad Eh, ayaxsabu yàq lan yaqdira alayhi ahad mu ne waaw doomu aadama jooju nag doomu aadama jooju nag moom lekk léeg mu gàtte xel ba jàpp ne kenn mënut ci moom dara foofu dafa indi ab laaj moom yàlla laaj boo xam ne pour yedd la pour yeddeel la ak weddi li muy wax <clears throat> ayaxsabu an lan yaqdira alayhi ndax nit jàpp na ne kenn mënut ci moom dara léeg-léeg nit ñi am ñoo xam ne yàlla da leen may ba ñu bew ba ñu bew buñ bewee di ko wane woo ci kaw nit ñi moo xam di jaay daraja la wala di jaay alal la wala ab taar la wala ab juddu la wala pouvoir buñ am wala doole juñ am yooyu yëpp ay xeetu jay la yoo xam ne yàlla da koy jay doomu aadama yi léeg-léeg ñu koy jayoo ñu wala boog ñuy jayeexu ba noppi itam di bew ci kaw nit ñi dama dem sax ba jàpp ne kenn mënu ci ñoom dara léeg-léeg ngis koo xam ne day yilif aw aw nit eh, lu ko neex def du ci seet boromam lu ko neex wax jàpp nga daal kenn mënul ci moom dara ndax moom mooy kilifa gi te lu mu fi wax moom mooy am yàlla na ayaxsabu an laa yaqdira alayhi ahad ndax nit jàpp na ne kenn mënulu ko dara ah loolu bu ko jàppee gàtt xel la ndax yàlla mi ko bind moom bu ko neexoon mu far ko léegi su ko neexoon mu xañ ko li mu ko jox léegi yaqulu ahlaktu maalan lubada nit am na ci ñoo xam ne dañuy def seen alal fu baaxut ba noppi buñ ko defee ba noppi nag di di wax ne ahlaktu ba daal tey day sànq na alal ju bari ci nàngam gis ñoo xam ne seen alal ñu ngi koy def ci ay moy yàlla gis ñoo xam ne seen alal naam dañ koy dimbale ay nit waaye nag defuñu ko ngir jëm yàlla waaye njëstala tax ñu koy def suñ ko defee ba nopp nag di bàkk gis ñoo xam ne dañuy dépassé alal ngir xeex yàlla yoonu yàlla ngir xeex lislaam ngir xeex woote yàlla ngir xeex alquranul karim ngir xeex ñi jàng alquranul karim ngir xeex ñi jaar ci yoonu baax ngir gàllankoor leen ak xeeti gàllankoor bu ñu leen mën a gàllankoor loolu daa am ci nit ñi moo tax yàlla na nit day génne alalam ba noppi di wax ne ahlaktu maalan lu bare tey sànq na alal ju baree baree bare yàlla na waa kiy def loolu ayaxsabu an lam yarahu ahad ndax moom daa jàpp ne kenn gisu ko ah, ah kay ndax yàlla nga koy gis te yàlla moom moom eh, lépp lu waay def mi ngi janoog yow te dina la ko fay bu ëllëgee dina la ko fay bu ëllëgee kon foofu itam mu indi beneen laaj boo xam ne pour yeddeel la rek ndax yàlla li laaj moo gën a xam waaye laaj la boo xam ñu xalaat suñu xel bu ñu xalaatee suñu xel dañu xam ne kii kat dañuy yedd ayaxsabu an lam yarahu ahad ndax moom daa jàpp ne kenn gisu ko ndax moom daa jàpp ne yàlla nekkul di janoog moom te bu ëllëgee lépp lu njëfoon mu xisaab ko ci ba yàlla waxee loolu ba noppi nag mu fàttale ko nag lenn ci ay xéewal yoo xam ne jox na ko doomu aadama ay xéewal yoo xam jox na ko doomu aadama ngir bëgg mu delloo si xelam te bàyyi mooy yàlla googu muy def bàyyi alal yooyu muy sànq ci foo xam ne du fu baax yàlla ne alam najal lahu aynayni gis nga mën beneen laaj laaj boo xam ne pour saxal la alam najal lahu aynayni xanaa du man yàlla maa ko may ñaari bët yu muy xoole ak bët yooyu ni mu seere nga xam ne tey boo ko doon jaay te ji loo ko jaay ñu ko ñàkk ñu ñu jënd ko suñ ko amee ni mu seere man yàlla ma may la ko noonu te layu na ci dërëm luyewu ma la ko fayeeku ma la luyaas fayeeku ma la facture parweer ma dem la ko may noonu gratuite alam na jànlahu ayneen xanaa doomu aadama du xalaat ci xéewal googu ma ko xéewale muy ñaari bët yooyu walisaana tey shafatayni ma may ko aw làmmiñ may ko ay tuñ li tax tudd làmmiñ ba noppi tudd tuñ mooy ñoom ñaar benn daje mënu dem ba moroom ji làmmiñ kes bu ko nit amee te amut ay tuñ du mën a wax imaginer rek nit ku yàlla bindoon tey ji defal ko aw làmmiñ kese ak gémmiñ te defalu ko ay tuñ nan lay nan lay mel ak bu bëggee lekk nan lay def ak suy nelaw waaye yàlla wutal ko ay tuñ yu muy ubbee gémmiñam mm, mu koy jariñ lu baree baree bare man yàlla man yàlla maa ko may loolu maa ko may aw làmmiñ may ko ñaari tuñ yëpp ma ci lool de wa hadaynaahu najdayni ba noppi itam ma wan ko ñaari yoon yëpp yoon wu baax ak yoon wu bon may ko am xel mu muy analyser di xool lu baax di xam lu bon di jëfandikoo lu baax di bàyyi lu bon waxade naahu najdayn man yàlla maa ko gindi wan ko yoonu baax ak yoonu bon wan ko am xel jox ko may ko am xel may ko am xel mu muy xalaat waaye loolu lépp nag taxul doomu aadama jaamu ma taxul doomu aadama bàyyi ma xel taxul mu teg ma sama palaas mu ne waaw man yàlla bi ma ko joxee loolu xéewal yooyu ma tudd xéewal yooyu ma tudd bi ma ko joxee fa laqta xamal aqabata laa foofu bi maanaa hëllaa la mooy ndax ndax du jéem a jànkoonteeg ay coona not bàkkanam ndax du jéem a jànkoonteeg ay coona not bakkanam ci def lu baax fa laqta xamal aqabata ndax du jéem a sonal boppam tuuti nag ngir jox ma sama wàll ngir jaamu ma mu dugal fi wa maa adraka mal aqaba ndax xam ngeen coono yooyu may sàkku ci moom mu def ko ngir jaam ma lu mu coono yooyu mooy fakku raqaba mais goreel ay jaam goreel jaam daa nekk ak jaamu yàlla gu rëy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp ku goreel ab jaam yàlla goreel ci safara wax ne ay ngëneel yu baree bare ci goreel jaam yàlla ne kon doomu aadama na bàyyi mbewte loolu na bàyyi wedde googu muy wedde te jéem a sonal boppam ci jéem a jaamu te nim may jaamoo nag bokk na ca fakku raqaba nay goreel ay jaam nay goreel ay jaam waaye itam na goreel boppam ci safara na fexe bay jaamu yàlla di te di ko sellal te bàyyi ay bàkkaar ngir goreel boppam boobu ci safara aw itaamun fi yawmin zi masqaba wala bokk muy lele ñam di joxe aw ñam ci bis boo xam nit ñi dañoo xiif loolu ak jaam yàlla gu mag a mag la doomu aadama teemoo jéema sonal boppam ci dima jaamu ci goreel ay jaam ak jox ñam ci bis boo xam nit ñi dañoo xiif aw itaamun fii yawmin zi masgaba masgaba mooy bisu mooy xiif bis boo xam nit ñi dañoo xiif mooy daal nga fekk ñoo xam ne dañoo xiif amuñu luñ lekk nga jox leen luñ lekk loolu jaamu yàlla gu mag a mag la jox ñu ñu xiif ña ca jiitu nag mooy yatiiman ab jirim ñi nga xam seen bàyyi faatu nañ amatuñ ko leen di toppatoo amatuñ ko leen di dimbali nga di leen jox lu lekk yatiiman za rawatina nag bu fekkee jirim la boo xam ne dalaa jege maanaam sa mbokk la ndax jirim bi bi nekk sa mbokk dafa am ci yow ñaari àq muy àq jege ñaala gi ak àq ji nekk gi mu nekk jirim kon nga ko dimbali ngir ñaari mbir kon booy dimbali ay jirim na ci say mbokk jiitu yatiiman za ba aw miskinan za ba wala boog muy jox ñam di dimbali kuf ñàkk ba yorul dara bay dëkk ci suuf bay tëdd ci suuf za ba ba ñu waxee ba fulaan mooy nit dafa ñàkk ba bay tëdd ci suuf bokkul ak atraba fulaan ba fulaan moom mooy nit woomal na maanaam dañoo dañuy nural koom-koom li ak suuf ngir bari gum bari mooy ba waaye bu ñu ne ba nag mooy aw miskin za ba mooy ku ñàkk ba mel ne sax ba àgg sax ci tëdd ci suuf ngir ñàkk fu mu tëdd ñàkk ba di tibb suuf di lekk yàlla neen ñi mel noonu lañ leen di dimbali leen jox ñuy lekk di leen dimbali di leen jox ñuy naan di leen dimbali di jox fu ñu dëkk di leen fajal seeni aaju kon doomu aadama nay jaamu yàlla ci yooyu summa kaana min allazina amanu bu loolu lépp jàllee nag la gën a yell moom moo doomu aadama fexe bokk ci ñi ma gëm fexee bokk ci ñi gëm watawaasaw bi sabri te bokk ci ñiy dénkante ci muñ ñoom doomu aadama yooyu nañ may gëm nañ ma gëm ba noppi bokk ci ñiy dénk ñi ñiy dénkante ak muñ ci seen biir watawaasaw bil marxama tey dénkante yërmande tey dénkante yërëmante nañuy dénkante di yërëmante ci seen biir yàlla neen ulaayka ñoo ñi ma wax day ñi nga xam dañuy ko dal ay jaam di jox ñam ci bis bu nit ñi xiif di dimbali ay jirim di dimbali ñi ñàkk ba noppi gëm ma tey dénkante muñ di dénkante yërmande ulaayka ñoo ñee asxaabul maymana ñooy waa ndeyjoor waa ndeyjoor moo ñu texe ñi mooy ñi nga xam ne yowmal qiyaam seen téere jëf ñu ngi ko jël ci seen ndeyjoor ulaayika asxaabul maymana ñooñu mooy waa ndeyjoor ñi nga xam ne dañuy texe bu ëllëgee yowmal qiyaam jël seen téere jëf ci seen loxo ndeyjoor daal di dugg àjjana waaye walladina kafaro ñi nga xam dañoo wedd yàlla nag walladina kafaro bi ayatina ñu wedd samay kéemaan weddi sama aaye alquran ji weddi sama téere yi ma wàcce ci ñoom hum ñooñu day asxaabul mashama ñoom ñooy waa càmmooñ moo ñu texee di moo ñu jël seen téere jëf ci seen càmmooñ di texee di di dugg safara bu ëllëgee te ñooñ buñ duggee safara ba noppi alayhim naarun musada dañuy tëj sawara ci seen kaw alayhim naarun am na sawara wu nekk ci seen sawara wu nekk ci seen kaw woo xam ne musada dañ koy tëj te lañ fay tëj ca biir kon lii la saar wi teg ci ab tënk bu gàtt muy saar woo xam ne itam ci saar yi wàcc màkk la bokk yàlla doon ci waxante ak yonent bi ak yéefar yi waaye tam di leen jàjji ak itam lenn ci jullit ñi di leen yee ngir wane ne doomu aadama yàlla may na ko xéewal yu bari yoo xam ne da ko war a eh, def fi yàlla bëgg te di ko ci jaamu ndax mooy tax mu jural ko ak texe bu ëllëgee su loolu amul rek xanaa mu wedd yàlla fetteerlu Euh, mbugal rek la koy jural bu ëllëgee salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.